bismil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaama yàllaw salaamaaleykum mbokki internet yi seetaan rajo Dakar international gannaaw bon sante suñu borom subhanahu wa taala ñoo ngi julli ci jàmm ba di sang ci yëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaan suñu borom moom mi dara taw yàlla dool di def ci réew mi jàmm leen fàttali ba léegi yéen ñi seetaan yéen a ngi ànd ak euh, rajo Dakar international ci seen biir émission bopp bi muy jotaay xam-xam nga xam ne saa su ne dañuy wër ay borom yi xam-xam ñoo xam ni yor na nañu lenn loo xam ni mën nañ ci jariñu jariñ leen ci yéen ñu dem dékk leen suñu micro ngir rek njariñ mën a roon tey nag jotaay xam-xam dafa dox ñëw fii ba zone de captage ah, fekk fii Serigne Cheikhouna mbakke borom solution Serigne Cheikhouna ñu ngi leen nuyu la bàyyi nga yoon teeg mbokk yi lay seetaan. aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala man la nabiya wala mursala baada mbokk yi ñu ngi leen di fay nuyoo bu baax a baax te di leen siyaare tey mbégte tamit di bokk ak yéen jotaay bu solo bii di jotaayu xam-xam mm-hmm. tey ñaan suñu borom jéggal ñu tey nu ñu bokk Sénégal yi ñu seetaan yëpp si biir réew ak si bisim réew mm-hmm. bisimilah macha allah eh, sëriñ Xadim tey ñu seet si la ngir waxtaanee xam-xam mm-hmm. waxtaanee ñaan ngir dan toll jamono joo xam ni problème yi bare na Euh, jàmm di baneen te gis na ni wax fa dëgg yàlla dara mënatu ci daal lu ñaan mm-hmm. léegi avant ñaan dafa am lu ko lu ko jiitu muy listixaar ak seet mm-hmm. dégg nañu coow li bari ci lañ mooy différence bi lan mooy wuti bi waaw listixaar ak seet moom mm-hmm. bëri na ñoo xam ne dañoo jàpp ne benn la sax ngir ñu bëree bëri da ko wax waaye am nañ différence bu yaatoo yaatu ndax listixaar dafa doon mbir moo xam ne daanaka jëlut kenn sax di dem si kenn mu la koy ku nekk rek mënal nga ko sa bopp ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ñu ko jàngalal boppam mm-hmm. listixaar mooy ngay bëgg a dugg si benn mbir wala nga mbir mooy lijjanti wala mbir moo soobu bëgg ñaan suñu borom mu defal la sa jàmm ak ndam ak barke mm-hmm. léegi nag ni koy defee mooy da ngay julli ñaari rakkaa yu sell ci waxtu wu dagana la mm-hmm. soo nappee nga jàng ñaan nga ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni astaxiruka bi ilmika ba ñaan nga jeex xam naa day gudd soo ko ñaanee ba pare si biir ñaan ga mbir mu nga dugg ñaan gi am na fu mu waxee sama mbir mii yàlla nga ma si defar barke yàlla nga ma si wan leer wala yàlla nga ma si wan nàngam hmm. soo ko defee ba pare nag ak ñaan la rek listixaar mooy ñaan hmm. soo ko defee ba pare nag tekkiwul ne dangaa war a gént ngir am résultat déedéet mën ngaa ñaan suñu borom nangu sax ñaan nga tëdd doo gént dara te teewul la nga doon listixaar am nga si la nga si bëgg na nga koy ne mooy hmm. mbir moomu su dëgëree bu yeboo nga tegg sa tànk te xam suñu borom nangu na sax ñaan gis na ne gënut si yow tax mu dëgëral ko su yombee na nga gën a sóobu te xam ne suñu borom nangu na sax ñaan te jàpp dal la mbir mi soo sa duggee di nga sa am ndam di nga sa am barke kon daal listixaar mbir la moo xam ne daanaka ku nekk rek mënal nga ko sa bopp ci ginnaaw soo demee si ko xam mu jàngal la ko wax la niñ koy defee kon lu yomba yomb la ñaar rakkaa ngay julli yu sell si waxtu wu dagana naafila daal di jàng ñaan googu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko na ko dem ko fekk bu moom dafa bëri façon lool ndax am ñu koy defee si kurus am na ñu koy defee ci ndox am na ñu koy defee ci suuf am na ñu koy defee ci téere am na ñoo xam ne nag yooyu yëpp defewuñ ko ko da ñëw rek toog dañ naan xelmal kat fi ñu téye sa baaraam wax la hmm. yooyu yëpp nag xam-xam lu yaatu yu wér la yoo xamante ne si maanaam kéemtalaay nit ki ni mu ñëwee rek noonu ngay jëflanteeg moom parce que doomu aadama dañoo wuti ay mbir hmm. léegi nag nit ku si ñëwee yow sëriñ bi nga xam ne maîtriser nga ilmul asrar hmm. yaa xam si ban façon ngay jaar ba seetal ko ngir gis ko ngir lam bëgg nga mën ko si wax lu leer nañ ñu loo xam ne du daj hmm. bu dee nag xam-xam yooyu nag dafa am bu gën a wér ndax yooyu yëpp mën nga see seetal nit teewul mu toog daal ne bi de gisuma ndax yooyu mën nañ ni amul ndeslaay si xam-xam maanaam bi nga xam ne nag dafa doon bu wér nga xam ne koo si mën di seetal di nga ko wax ay mbiram avant ak lim toll ak après. Mm-hmm. te dara du si dañ li nga wax lépp lu am lay doon loolu xam-xam bu ñuy jàng la doonut lu ñuy doon si ay maam. Ah. doonut luy feeñu nit. Mm-hmm. doonut luy dab nit tamit loolu kenn mënu kaa mën. te mm-hmm. jàngoo ko mi ngi mel ne fatiha kenn mënu kaa mokkal te jàngoo ko. ñaar li si xaar nag muy seet googu noonu. nit ki pour mu mën ko nga xam ne da koy maîtriser ba koo seetal gis ko en cent pour cent. loolu noonu faaw da koy jàng ndax dafa am ay xeeti matières yu mu composé yoo xam ne yooyu faaw nga xam ko. door a mën a seet mm-hmm. te yooyu noonu mënuñu su ko xam te jàngoo ko lu si mel ne xilmu uruful asma loolu dinañ si ñëw si kanam mm-hmm. ak xilmul xadab mm-hmm. ak lenn si xilmu nujum yooyu soo ko mënut doo mën a seet moo tax bëri na seetkat yoo xam dañuy seetal nit tey dinañ gis kii mu tagg leen lool seet ëllëg ñu gis kee mu xalab leen lool ngir ne gisu leen hmm. waaye bu dee bii may junñ nag nga xam ne waxtaan dina gën a leer suñ si ñëwee hmm. képp koo nga leen mukk di ko wax ay xam ne luy dañ lay doon mais est-ce que tamit du ngeen faral di seetal di ko wax ay ku ñuul ki ku gàtt gi wala ku xees ki ku ñuul ki waa xam nga loolu moom daanaka man damaa bokk si nga xam ne loolu ànduma si xëy na nag am nañu koy def du leen bañal ndax xëy na la ñuy def fañ ko teg ñoom ñoo ko xam waaye man du ma ko def hmm. li wérte wóor mooy doomu aadama même soo moom ay mbiram nit ku leer naan ñu doonum noonam sax nga xam ko nga ne mën ngaa sitatu xam ko mm-hmm. ne ko seexu naa mbàkke mi sam noonu la wala ku lay yàqal la sax amul sens mm-hmm. nga wax ko mm-hmm. li am sens mooy nga defal ko loo xam ne noon booba lu muy am am doole dina mucc si pexee noon booba ñaaree ba tamit di wax nit ki bëri nag xam ne dañ leen di tagg si tudd tur waaye da ngay ñëw ñu naan la Moussa mi Demba mi Paate mi te nit koo gis xam na ko tudd Moussa xam na ko tudd Demba xam na ko tudd Paate kon yooyu maanaam ay nax la gën a nuru si dëgg waaye li warta daal mooy nit ki su ñëwee féetal ko hmm. xamal ko loo xam ne lu koy lor la hmm. wax ko ni mu koy wattani ko ba mucc xamal ko loo xam ne lu koy jariñ la nga teg ko si yoon woo xam ne su sa jaaree mu jariñu looloo am solo doomu aadama ñaar rek la bëgg muy mucc ak mos hmm. nit ki nag su ñëwee nga seetal ko li am solo ci seet gi mooy nga wax ko lu koy musal nam ciy fegoo wax ko la koy jariñ nam ciy jotee hmm. loolu nag insha allahu rabbi képp koo xamante ne ci maîtriser nga seet gii ma lay wax hmm. moom insha allah képp koo seetal di nga ko wax loo xam ne njariñ dong lay doon ndax da nga ko fegal ay loram bijjil ko tamit ay njariñam macha allah da ko fegal ay loram bijjil ko ay njariñam ñu dégg ci li muy wax nga indi ilmul asraar mu mel na que jamono ji euh, ñiy yëngu ci wàllu asraar xëy nag ci noonu lañ ko mën a waxee ñiy yëngu ci wàllu ñaan dafa bari mel na sëriñ si bari na lan lan lan mooy asraar waaw xam naa bala ma dugg si question boobu sax ndax dafa am solo te bëgguma di si dugg ak génn damay bëgg su ma si duggee rek yaatal si ngir mbokk yi seetaan xam dëgg-dëgg lan mooy lasraar damay def si seet tuuti hmm. léegi seet nag ginnaaw bi nga mënee loolu ndaxte maanaam xam-xam dafa mën lu bëree bëri waaye nag am na fa mu xam-xam mënul lépp am na fa mu yem léegi seet ki ko maîtriser ba mën ko ba mën a seetal nit ki yan résultat la mën a génn maanaam seet lu mu mën seet bokk na ci li mu mën mooy nit di dëggu ci société bëgg a seqal nit liggéey wala mu bëgg a tukki wala mu am na loo ga mooy am ay jafe-jafe moo xam soxna la moo xam tukki la moo xam kër gooy jënd la moo xam business booy dugg la kon loolu seet da koy feeñal hmm. ba nit ki nga xam ne dafa tawat taxamut li ko dal mu sonal ko dem na ci hôpital yi dem na fu ne te amul saafara kooku tamit su yàlla dogalee nga mën li googu xoolal ko ko mhm. di nga ko wax tawar ji kañ la ko dal mhm. ak li ko dal lu mu ak li koy saafara lu mu mhm. bu fekkee loo xam ne la sëriñ mën na kaa faj te nga maîtriser xam-xamu faj da koy fajal bu fekkee doon na loo xam ne nag médecin moo koy faj te nga yebal ko si médecin yi ndax wax dëgg yàlla tamit kenn mën lépp mën a faj lépp yenn saa yi nga dégg ko koy xool loolu tamit dalul xel maanaam li am solo mooy nit ki da ngay mën lii keneen mën lee hmm. fekkee loo mën la nga def ko fa li leeral fekkee mënoo ko nga xool ña ko mën nga yebal ko foofa hmm. ndax am na loo hmm. bi mooy jigéen gi nga xam ne dafa tollu diggante mooy yi ñuy def si hôpital yi xam-xam dafa yaatu rawatina suñu mbécc mi dafa mën lépp maanaam ni ngay demee hôpital ñu defal la écho xamal la sa doom ju góor la wala jigéen ak position yi mu tëddee baax na seet da kaa mën seet na mën na ko bu baax ba am na échographie maanaam soo maîtriser ilmun nujum rek loolu du doon dara xëy na ki nga xamul lay réy si moom nga seetal ko wax ko sexe bébé bi lan la sexe bébé bi maanaam da nga koy xamal ndax góor la mm-hmm. wala nga xamal ko ndax jigéen la wala nga xamal ko sax nax ndax dina muccam déet xam nga loolu échographie sax am na fu mu déet waaye nga xamal ko ndax sa doom ji dina muccam déet wala sax nga xam ndax ay seex la wala déet yooyu yëpp seet mën na ko daanaka tollu yomb yomb la loo xam ne maanaam soo koy jàngal nit ci trente minutes mën nga kaa jàngal maîtriser ko ba mënal ko boppam kon hmm. seet ba tey mën na loola hmm. ki nga xam ne tamit dafa tukki tukki bi yàgg lool ay mbokk mu xamuñ ci moom dara hmm. léegi ci seet soo sukkandikoo di nga xam ndax moom mi ngi ci jàmm ak fa mu nekk sago moo ko fa bàyyi wala déet wala daa nekk ci ay wala déet loolu tamit di nga ci xam dara soo xamee ba pare lay solution yi tamit di nga ko am kon daal seet mbir la moo xam ne ki ko maîtriser mhm. maanaam daanaka mën naa ne yittee adduna yépp rek su ñëwee mën nañ kaa xoolal te dugg yenn man damay faral di wax ne maanaam sëriñ dëgg warta laaj soxla warta laaj aajo nit nit ki su ñëwee rek su toogee maanaam si seet war ngaa xam li ko tax a jug te war ngaa xam la ko soo ko seetalee rek jëru ne xam naa si loo xam ne xamoo ko loolu nag du baatin du dara mayu bi na xam-xam rek nangoo sonn ndax soo nangoo sonn rek suñu borom xamal la mooy loolu sa question bi ma ñëw si lu mu mooy euh, ñu gis ñi ñaan bare na. Mhm. léegi lan mooy asraar lan mooy asraar. waaw ilmul asraar xam naa leeral lépp ci benn jotaay dina jafe. Mhm. waaye suñ ko doon tënk rek. Mhm. ba ñuy wax ne ilmul asraar xam-xam day mel ne ci misaal benn mbaar la mu mag moo xam ne. juróomi poto moo ko téye. moo téye mbaar mi pour mu taxaw. juróomi poto yooyu nag nga xam ne benn bu ci damm rek maanaam mbaar mi day daal mënut a ñàkk daal. faaw juróomi poto yi daje pour mbaar mi mën a taxaw. bi ñu njëkk mooy xuruful asma xilmu xuruful asma il faut nga xam xuruf yi hmm. maanaam nit ku ne say tur loo ko gis ci àdduna mu am tur rek tur yi ay leetar la composé woon leetar yi dafa am lu ñuy wax leetar yi yoo xam ne ay leer lay tegtale hmm. am leetar yoo xam ne ay lëndëm lay tegtale am leetar yoo xam ne dafa am doole lool am leetar yoo xam ne dafa feebul maanaam lettre fi lettre yi nii ay alif ak baa ay alif ay baak ay aak ay beeg ay see yooyu su hmm. nekk am na signification dafa am leer am lëndëm am bu am doole am bu néew doole kon loolu faaw nga xam ko ñaareel ba tamit mooy ilmul adab maanaam turu nit ki Seexuna Mbàkke mi xadadam lu muy jàpp turam lu muy jàpp ak ban tur yàlla la dëppool hmm. ak tey jii soo koy fajal maanaam tur wi wala nga bëgg a dagg talsam si ay mbiram hmm. fajal ko ko loolu nooy jaar kon faaw nga xam xilmul adad hmm. beneen bi ci topp mooy xilmu asmaullahi alxusna maanaam tur yàlla yi nga xam tur yàlla yi quatre vingt la si liñ miin quatre vingt dix yi bu si nekk am na signification bu si nekk tamit am na su muy dox am na yoo xam ne dañuy dox si

maanaam xaatim nga maîtriser ko ndax nit ki mënoo di jëfandikoo lasrar en général te doo soxla xaatim mm-hmm. xaatim nag mën naa ne xilmul asrar su amoon dansé dama naan ah, xaatim mooy danse bi parce que xaatim dafa doon loo xam ne ay chiffres la yooyu sol mm-hmm. chiffres yooyu nag ñëpp xam nañ un plus un égale deux la mm-hmm. waaye soo soxlaa deux daa def un plus deux égale trois ngay am te su boobaa mën naa jur conséquence fekkee jàngoro ngay saafara mën naa yokk joote mi ngi mën la jox la ay comprimé naan leen naan benn nga juum naan ñaar mën na laa jural loraange. waaw effet secondaire kon xaatim dafa doon loo xam ne mooy dansé la xaatim tamit dafa bëri sew-sew yu si ne ndax yenn saa yi nga gis ku ko mën a bind lool mën kaa rëdd sol ko mu rafet lool taaru soo calculer lépp jub mm-hmm. waaye loolu daanaka mooy li gën a néew si xam-xamu xilmul xawaatim mm-hmm. xilmul xawaatim loolu si gën a mën kaa sol mën a dagg xaatim ni sol ko mu jub mm-hmm. loolu si gën a tur lii si gën a jafe nag te ñu bëree bëri mënuñ ko wala xamuñ ko ngir ne gëstu bi def na mooy maanaam soo adadee tur ba am li nga soxla nombre bi nga soxla far mu ndamb maanaam nga def tur yi égal def li ngay calculer lépp mu am kasra kasra mooy mooy virgule léegi virgule dafa am signification léegi virgule bi fan nga koy dugal ak nan ngay xamee ne am na virgule ak nan ngay def ba am li nga bëgg loolu mooy jafe-jafe bi waaye soo defee li ngay def boole say calcul daal di diviser mm-hmm. te amul virgule loolu yomb na loolu da ngay sol fu nekk la fa war a ne rek da am lim bi nga sol waaye su amee wér mooy jafe-jafe bi hmm. sëriñ su bëri nag sama mbokk sëriñ si xëy na gëstu bi des na ba tax na suñu amee wér gi dañu xam wér bi ndax am na ko mu déet hmm. ak fan la dambu ak ñaata la kasra ak ban buntu lañ koy sol loolu la bi waaw jege na ko mën naa dem moom la si français mathématique la ndax lépp si ay chiffres la tege ak calcul hmm. il faut nga maîtriser loolu ngir mën ko beneen bi ci teg muy juróomeelu ponk bi mooy mën naa ne mooy baasu nday xilmul asrar mhm. te moo di mhm. xilmul nujum nag dafa doon loo xam ne maanaam doomu aadama soo ko maîtrisé mën ngaa tekki loolu mooy lan waaw moom leeral dafa am lu ñu naan alkawaakibu saba mhm. muy alsamsu alxamar alatarib almarix almustari alsoxal alzahra yooyu noonu ay marix la am loo xam ne dañ naan ay kawaakib la waaw dafa am ay kawaakibu saba mooy juróom-ñaar yooyu am nañu woowee ay buruj léegi nag ñoom bu si nekk waxtu wu ne am na buy fenq am buy sox boo leen quatre heures yi mat léegi nag nit ku ne ba ngay juddu. adduna mhm. moom vingt quatre ci lay dox. Mhm. léegi nag vingt quatre heures am na boo ci tombel am na biddiw boo tombel ak buruj boo tombel wax bi ngay juddu moom nga tombel moo tax ñu naan nangam mooy sa biddiw. Mhm. léegi nag loolu nag faaw nga maîtriser moom nu juum ngir nit ku suñu nga xam lan mooy biddiwam. ak biddiwam ban heure lay fenq bàyyi aajo nga mën nga kaa fajal ci yooyu ay jàngoro nga mën kaa saafara ci loolu ndax nit soo xamee ay biddiwam kañ lay fenq ak kañ lay sorek hmm. hmm. ko tex waaye ki maîtrise xin mun nu jum di ñaan moom moom aajo moom daanaka a amut aajo yëpp ay yem ci moom ki bëgg bay rek ki bëgg wërsëg ak ki bëgg tukki ak ki feebar fukki at ak ñooy yem ci moom lépp lu muy saafara la ci diggante bu gàtt gàtt gàtt kon yii yëpp boo ko maîtriser par force koo ñaanal mu nangu du par force ndax par force ab jullit du ko wax mhm. waaye su ko ab jullit sañoon wax mën nañ ne par force mhm. ndaxte ñaare soo defee cent mhm. quatre vingt dix pour cent yi résultat ngay am yenn saa nag benn ba nga xam ne sax si ngay essayé mooy la nga bëgg amoo ko sax suñu mooy nattoo ab julli loolu dëkk ngir mu xam toujours ne moo am na lu mu tële ah. ndax nit ki fekkee lu def am si résultat na mu ko bëggee su yàggee ak lay mën na kaa ndamu mën na kaa un léegi un pour cent boobu nag mooy natt bi nga xam ne moom la suñu borom teg ngir nga xam ne yow ab jaam kese nga am na loo mën waaye am na loo télé <laughs> waaw <laughs> léegi macha allah ngir nga xam ne ab jaam kese nga léegi da dañuy dégg nag coow li xaw bari muy euh, dem naa ci sëriñ te aw ma résultat loolu daf mel ni yàgg nga koy dégg yéen waaw waaw xam nga loolu mooy li ma junñu léegi maanaam ñaan moom dafa doon loo xam ne sëriñ bi hmm. képp ku ne la ñaan lu ñuy donn kase kase la hmm. wala lu ñuy faraat ci mbedd la moo la ko xañ hmm. maanaam ñaan xam-xam la boo xam ne hmm. ki bëgg a doon médecine hmm. nga xam ne day jàng ba am bakk jàngaat dix ans wala sept ans wala cinq ans maanaam coono bu raw boobu mooy nekk si ñaan maanaam ñaan lu ñuy jàng la tërbiya ko sonn si lool ndax yii ma wax nii sax xam ko taxuta mën a ñaan fi mu ne fi na xam-xam yii ma filim ay waaw cinq ponk yooyu nga xam ne mooy ponk yi xilmul asrar nit ki mën na kaa maîtriser lool te li gën a yomb si ñaan muy bàyyi sax du ko mën du xam dara si ñaan ndax ñaan xam loolu ak ijaabu yombul fi ne nit ki su jàngee ba am bac mhm. maanaam jàng la muy chiffre ba noppi ba am diplôme faaw mu def stage ah. formation ak stage boobu bokkuñ d'accord bokkuñ nit ki ne lasara tamit soo ko jàngee ba xam lii comme lii ma la expliqué mhm. soo toogoon nii mën naa la kaa leeral si trente minutes wala une heure de temps ba nga xam foo toog wax ko ñu ne kii am na xam-xam mhm. waaye nag pratique bi mooy def <laughs> pratique bi nag lu ñuy tërbiyewu la ndax lasara dafa am lu ñu naan nuuraani yu am lu ñu naan sulmaani yu mooy leer ak lëndam soo bëggee tërbiya woo nooraaniya gi da ngay jël ay turu yàlla mm-hmm. nangoo sonn di werd mm-hmm. ñeme kurus di mm-hmm. jaamu yàlla di lekk lu lew di naafila nangoo sonn si jaamu yàlla su yàggee yàlla defal la ijaaba su boobaa jërëjëf ngay bind sax ak sax xanaa da ngay bind jox nit ki wala nga jox ko dara nga xam ngir dalal waaye lay faj aajo ji dëggantaan looy toog defal ko ko la waaw beneen bi ci topp mooy sulmaani bi boobu moom itam nga xool saytaane da ngay jëflante rek lañ bëgg nga def ko ba am seen ijaaba ñoom itam ñu lay jàppale waaye loolu nag amutoon mujj amutoon mujj te soo euh, dajeeg sa tamit maanaam kii moo tax ñi nga xamante ne si yàlla dafa dogal ñu dem si sëriñ su bëree bëree bëri mm. te seen aaju fëriwut mm. xëy na ñu dajeeg sëriñ su mën mm. sëriñ sa suñu borom nattu leen ba nëmmut a faj aajo nit ka sa ñoom jaare ko si ñoom ah. waaye ñi ci ëpp nag moom ñañ dem dañoo xamul dara soo bëggee dégg dëgg ah. suñu réew mii ah. sëriñ si ma fi gis nii ñuy ñaan nit ñi di leen wuyu ji di leen bañ quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi xamuñ dara sëriñ ijji maanaam lasaraar moom maa ko li muy wax nag xëy na amagul ci plateau yi waaye sëriñ bu mu di doon luñ jàpp ne xam na dara suñ toogee waxtaan ci palaato ñëpp di seetaan dinañ xam ndax kii xam na dara wala xamul dara su xamul yenn saa yi damay gis ku ni wax fa dëgg man sama mbir yamul rek ci ñàkk faju waaye dafa gën a dëgër dolli ci waaw loolu mooy danse bi ma la doon ci xaatim mm-hmm. xam nga xaatim tey soo ñëwee Euh, sëriñ bi su ñëwee daan ne damaa bëgg wërsëg si misaal. Hmm. nga daggal ko xaatim te maîtriser woo xaatim. Hmm. léegi da nga war a def deux si misaal nga def fa trois. da hmm. nga war a def quatre nga def fa cinq. soo boobaa mën naa jur conséquence mooy ki nga xam ne dafa feebar bëgg a faju naan loo xam ne da koy faj jël sa dose bu bëri da koy lay rey te pourtant garab gi fegu si dee. moo ko tax di ko utiliser. te moo ko mooy ki nga xam ne dafa dem si sëriñ. mu war kaa fajal saafara si. wala mu war kaa defal aajo bi wala mu war kaa defal bayre bi wala wërsëg bi mu jox ko loo xamante ne fii teguwul ci xam-xam hmm. maanaam conséquence la koy jural contraire bi la ci am su may tuut hmm. te loolu sax li ci gën a ndaw nag mooy nga dem bëggoon ubbee ko far ñu tëj la mën naa jut lu gën a rey lool looloo ci gën a ndaw ku yàlla na toolool nga dem ci ko xamul dara mu defal la loo xam dalaa gën a tëj santal mm-hmm. yàlla xooli ko la ubbi rek mm-hmm. ndax ak tëju moom foo ko fekk ak ubbee googu sa wetam <laughs> ndax fa inna ma'al usri yusra mm-hmm. loolu yàlla moo ko wax ginnaaw ak jafe gu ne ak yomb nekk sa ginnaaw waaye daal xale kulli xaal mooy loolu moo ci gën a tëj moo tax nit ñi damay faral di ne maanaam bul dégg ni rek mu neex làmmiñ man la Seexuna Mbàkke nga dem wuyu ji ko mm-hmm. li am solo mooy nga gëstu kii mooy kan mm-hmm. xam cosaanam xam jaar-jaaram mm-hmm. soo xamee cosaanam xam ne kii li wax nii nekk si moom la wala lu nekkul si moom la waaye tey bëri na sëriñ soo xam ne te ñaari télé yi rek lañ leen xamee soo jugoon a jugoon ku ñooy kan sax problème ngi am ndax doo xam fooy jaar ndax kenn xamul ñooy ñan dañoo jékki-jékki mën nañuy jékki-jékki wàcc loolu nag moom xam naa daal dalul xel macha xam-xam la ak sëriñ Seexuna Mbàkke borom solution sëriñ Seexuna ñu gis ni jamono ji ñu toll nag examen yi nga waaj ñëw concours yi nga waaj ñëw léegi lan mooy nekk ci jafe-jafe ba nit mën a def examen te du ko am. waaw xam nga doomu aadama. Mm-hmm. maanaam li koy gàllankoor seen dundam dafa bëri. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne cat su leen mm-hmm. naa nañ si ñëw si biir waxtaan yi a sonal a sonal ba luñ lijjantu duñ ko am. luñ du sotti xam ne du cat sax waaye rab la. rab moo leen di gàllankoor ba nga xam ne lépp loo xam ne day tegtale ak jëm kanam si seenu dund. day jafe. am ñoo xam ne du rab waaye pexe noonu la hmm. ndax ñett yooyu moo sonal doomu aadama mën naa ne doomu aadama lépp looy lijjanti mu të hmm. ginnaaw dogalub yàlla bi hmm. si cat la jaare wala mu jaare si wala mu jaare si noonu cat nag dansé gum dansé ak bëri gum bëri moo tax dafa doy waar léegi kenn mënu see mucc cat dafa dansé dafa dansé lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu si wax doy na sëkk law tasaabaxatil xadru wala aynu la sabaxatil aynu mu ne dogalu bi yàlla bi ak cat te mooy bët fekkoon ne dañuy kursi di rawante moo wax ne kon bëtey jiitu kon xam nga loolu du danse la ñu eh. sang bi Serigne Touba si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul mm-hmm. dégg na fi ay ñaanam mm-hmm. toujours da si daa mos la wakul muizan lana mm-hmm. min charri fi xasarin max sarri fammin wa sarri l ayni mooy li nga xam ne si la cat di jaare pour lor nit yi kon wàllum examen wala wàllum lijjanti kayit wala wàllum lijjanti liggéey bëgg liggéey mu jafe yooyu yëpp ñaare day am gàllankoor yu koy waral su xamee gàllankoor ba saafara ko ba pare nag nit ki da nga koy samp rek salem na si ay moroomam nga fexe ba defal ko loo xam ne xalaa kulli xaal su jiituwut kenn du ko jiitu waaw ñaar yëpp dong nga mën a mu jiitu wala kenn bañ a jiitu rek. <laughs> waaw léegi mën nga def koo xam ne mooy jël ci ñaan ñaan mën na. maanaam du ne mooy jël P waaye cinq première du ko génn P nag dama ko garantir waaye cinq première ak examen bu mu mën di doon képp koo xam ne yàlla dogal na jëflante ci moom insha allahu rabbi <laughs> maanaam cinq première yi doo ko génn loolu moom lu leer la loo may nañ tamit ku ñu jëflante wàllu googu te gisoo <laughs> maanaam soo ñëwee média loolu may nañ ko comme neex wàllum examen wàllum lijjanti dara muy jafe waaye loo xam ne mbooloo waaw lépp loo xam ne mbooloo da ngay bëgg am ñu muy jafe rek kam jafe na fexee dégganteeg ñun wala mu jëflante ba ci tukki ba ci tukki lépp rek maanaam lépp loo xam ne maanaam doomu aadama da ngay soxla mu jafe ndax bëri na ñoo xam ne sax xëy na su doonoon lu ñuy woote xëy na ay résultats yu bëri dinañ feeñ ñoo xam ne yàgg nañ bitim réew def ay at yu bëree bëree bëri mm-hmm. yàlla dogal seen buntu wërsëg ubbeeku dafa lool waaye ay kayit lañ def mm-hmm. bañ jëflantee sant nañ yàlla te mm-hmm. loolu diggante bu gàtt lay doon mm-hmm. maanaam doonul loo xamante ne si dañ naan la ay fukki at ak ñaari at ak weer ak yu ay weer déedéet loolu diggante bu gàtt lay doon daa daanaka ki gën a yeexle nga xam ne moo gën a yéexi mbir koor quarante et du ko toog te ay mbiram sottiwul bu fekkee ku gaawee mbir moom mën nañ kaa commencé fay mu jot ay mbiram su ko jëfandikoo balaa bis ba delli sa résultat mën naa feeñ loolu doonul lu yàgg loo xam ni képp koo xam nag wàllu googu jox na nga toog 41 jours mm-hmm. natt bi mooy mm-hmm. ne suñ moo xam du dëgg te fa la neex yow dina dem loo xam ne suñ bi lim moo xam du dëgg wàllu googu moom wàllum kayit ak wàllum aw wërsëgu tëjoog yooyu képp kuñ si jëflanteel insha allahu rabbi su ko yàlla dogalee maanaam quarante et un jours maximum nag laax maximum mooy quarante et un jours <laughs> waaye mën naa bañ a ma sax vingt wala vingt quatre heures su ko matee say mbir nga ngi am baax a baax a baax kon xam moo tax gaa yi tuddee la Serigne Cheikhouna Mbacké borom Serigne waaw tur boobu sax daanaka ñu bëree bëri dañ koy bëgg a wax waaye dama koy dama koy nëbbatoo bëgguma ñu koy wax naan Serigne Cheikhouna Mbacké borom Serigne ndax dañoo gëm ne xëy solution yàllaa ko yor hmm. waaye nag doomu aadama su la yàlla nattoo ñuy am si yow yaakaar si seeni soxla di la si yaakaar di ñëw yàlla tamit di la defal sutura ba yaakaar yooyu di bañ a tas soo waa nu ne nañ lay woowee léegi nag tur woo moo tax moo dem balaw ku nekk naan borom sori sa borom ay ñun ay ndongo lañ la yoo xam ne dañuy jàng rek di gëstu comme ñëpp xamaguñ dara léegi léegi laaj ku mujj gi mooy maanaam euh, wa wa rab rab waaw rab dafa doon loo xamante ni si ñaar ya hmm. maanaam rab sax xëy na su ma ko waxee fii ay reedee waaye rab amut li ñu woowee maanaam amut maanaam li ñuy woowee rab amut rab daal amut li am mooy jinne olof nag moo koy wax rab waaye liy jàpp nit ba koy yàqal tamit di jinne loolu saytaane la ñu koy wax xarin maanaam loo xam ne dafa lëkkaloog doomu aadama nga ni rab amut maanaam ñett yi maanaam rab amut olof day def lu ko jaaxal jombal ko mu ne rab nekk ci kër gi sonle loo sax dañ naan ko yow yaay rabu kër gi jinne la ñuy woowee rab cosaan la lool la woon hmm. ñu dem nag ba lu ñu xamul rek di ko woowee rab kon jinne mu am waaye rab amut hmm. ñaaree ba tamit lii topp nit ba ngay sonal di ko yàqal du jinne jooju noonu loolu saytaane la waaw saytaane mu melawoo melaw jinne waaye nag su waa dañ ko waxee sax jinne la topp yaa ngi dégg sëriñ si nag jinne la dugg rab la topp ak yooyu oh. di nga mocc loolu théâtre di mocc mi yuuxoo yooyu théâtre la mm-hmm. waaye li am mooy xarin mm-hmm. xarin nag mooy jàpp nit fekkee jigéen la mu kaa am jëkkër fekkee góor la mu teekaa am soxna mm-hmm. di yàq sa liggéey di yàq sa relation ak nit ñi lépp loo dugg mu indi si ay gàllankoor maanaam yàqal la si àdduna daal mën naa ne yàqal la si àdduna hmm. loolu nag ni muy duggee nag dafa bëri am na ñoo xam ne xëy na heure ñu dox te waruñ kaa dox moo ci la leen dale am ñoo xamante ne si jëflante ni ñu wartu jëflante saa leen topp am ñoo xam ne nañ soloo génn comme suñu mbokki jigéen ñi saa leen dale am ñoo xamante ne si nag maanaam mën naa doon sax ñu tàggat ba jaxaseka ak yow ndax uh, loolu mën naa ne fi ne nit ki yor xam-xam bu ñuul fexe ba bool laak loolay sonal maanaam loolay sonal guddeeg bëccëg léegi nag yooyu nag moom képp koo xam ne nekk na si yow muy rab boobu noonu ak cat maanaam sa avantage si adduna maanaam yaa ngi ci danger daal yaa ngi ci danger moo tax képp koo xam ne am nga lu la jaaxal say mbir mhm. demal si koo wóolu mu xoolal la lu mu doon su mhm. doonee ñett yooyu nga taxaw si lu mu gën a gaawee ngir saafara ko te xam ne soo ko deful rek say mbir pour nga réussir sa àdduna lu jafee jafee jafe lay doon ndax da yàq rek dalay lay yàqal am na beneen xarit boo xam ne nag ñaari si ndonu lay jóge mhm. mooy nga judd fekk say maam yoroon ay jinne ay xàmbag waaw ay xàmbag yooyu maanaam xàmb sax du ma ko wax ndax foofu tamit ba tey fekkee wàllum sari ala da ngaa contre ah. xàmmu mbirum saytaane la hmm. ñaare moom ay condition ngeen di teg hmm. ngay respecté condition yi mu lay defal la nga bëgg te condition yam lay tegal soo ko tegee sariya du sariya nangu ah. waaye dafa am ñoo xam ne ay jaamukatu yàlla lañ hmm. sell di góorgóorlu seen diggante seen borom ba suñ borom boole woon leen ak ay taalibi yoo xam ne ay jinne la ñuy doon jinne yooyu nag dañ lay toppee di la déggal noonu la ñuy toppee ak sa di leen protéger si lépp lu leen yàqal nga xam ne njëriñ la leen a jural mm-hmm. loolu xarin boobu noonu day jëriñ nit mm-hmm. bi nga xam ne moom laa doon expliquer léegi ne day lor nit ki mm-hmm. kon daal mbir yooyu muy ñetti cat rab ak noon képp koo xamante ne si say mbir am na lu si jaaxal dama si ko wóolu mu xoolal la su doonee ñett yooyu noo mën a fexee fexee ba dàqali ko moom moo gën ndaxte nit ki bëri na lu muy bëgg wërsëgam tëju mu bëgg tukki mu jafe mu bëgg soxna mu jafe wala soxna si bëgg borom kër mu jafe wala képp koo waxal daal war am sax wala sa yaakaar di tas lu bëree bëri en général du génn yi léegi nag yii nag su ko doonee moom saafara gi fekkee dem nga si ko ko xam du jafe bu fekkee laneen la tamit dinañ ko xam te dinañ la wax la koy saafara suñ déggantee si wàllu googu insha allah léegi bi bii moom faaw mooy que internet yi mooy koo xam ni tëju moom mooy maanaam tëju gu mm. mooy ràpp la def moom mm. waaw dafa am ñoo xam ne yàlla moo dogal seeni mbir moom dafa dëgër lool dara mënuñ ko am dara dara dara maanaam soo leen woowoon téléphone sax yor xéewal di leen ko indil maanaam soo jógee pour dem mën nga am gàllankoor loolu nag musiba la moo xam ne ñaar ya maanaam cosaan la mm-hmm. maanaam feebar mi ngi mën ne ki nga xamante ne ci bopp da koy metti mu koy sooxaale war kaa faj te faju ko mm-hmm. mën naa dem ba boobu jural ko yaram yépp di metti ah. jàngoro léegi nag ñaare ki tëju googu la ñu liir ñu gis ba mu jural ko um. waaw léegi nag la ko um nag la ñuy xam si ko xamee saafaraal ko ba parce que xam nga yenn saa yi nga dégg nit di waxee noo xam ne. Mm-hmm. kenn du waxee noonu ci xam-xam. maanaam Cheikhouna Mbacke am na jàngoro diw am na jàngoro keneen am na jàngoro muy ñett. Mm-hmm. ku nekk sax jàngoro na ko yëgee yéen a ko bokkale. nga waxee noo xam ne day mel ne kon ñoo bokk leen dal ñoo bokk leen saafara déedéet doomu aadama mënoo xam li ko dal mukk mukk mukk te xoodaloo ko ko mm. waaw mënoo xam li ko dal mukk ci mm. explication nii ne mm. médecin bi gën a mag ci àdduna soo demee faaw nga wax li ngay sentir ni nga koy sentir. Hmm. mu door a def ay seetam. pour hmm. xam li la dal lu mu hmm. waaye nag da ngay gis ñoo xam day naan koo ñëwee rek loolu lu dal ni nangam cat nangam nangam faaw nga xam ndax cat la am te nit yenn saa yi mu ñëw man de bi damaa tëju catama topp damaa sonal dañ maa liggéey nag soo xoolee bëgg bi nekk te yooyu yëpp doonu ko. waaw yenn saa yi nit ñoo toog fii wax a wax a wax ba sonn waaye soo xoolee ay mbiram daal ay ree dalay jàpp da xam ne moom lim jàpp ne moo ko gàllankoor nga su yàlla dogalee fa mu daan dem aajoom du faju moo daan lor boppam ñooñu tamit daan ko loraale ndax dañu ko war a sukkandiku say waxam hmm. ki nga xam ne yàlla bool nañ ñu war a jëflante hmm. su waxee fukki waxtu ak juróom man dama si sukkandiku su waxee ba daanee na may njëkk a def mooy jël samay mbir ya may xool xool ay mbiram ba xam lii mu wax nu mu def nu mu defal li am su ma gisee ne am nag ak wuute ma wax ko say mbir yi kat li nga ko teg doon lii la lii koy saafara ñu saafaraal ko ba insha allahu rabbi su sukkandiku ci wax yi nit ki ñëw daal moom wóorul ndax nit ñi xamuñu leen daal dañuy tiit di wax rek nit ki moom su tiitee lu ne lay wax lu ne lu ne lay wax waaye nag mbir yi maanaam réalité day am doodu ne nit ki li mu jàpp rek mooy li am macha allah seen émission jotaayu xam-xam la ak Serigne Cheikhouna Mbacké nga xam ne fii ci Ndakaaru euh, cité euh, zone de captage da nekkee waaye fekkee fële mën ngeen ko fële ca Touba yaakaar naa ni tamit forage Darou Marnane bu fekkee tamit wax ko yàlla da ngeen bëgg a jokkoog Serigne Cheikhouna Mbacké mën ngeen ko woo ci numéro yi Serigne bi. waaw 77. 494 77 38. 494 benn boobu kese la léegi xam naa numéro bi nag moom la leen di bindal noonu ci suuf affiche bi ak adresse yi saa yu ngeen jokkoo ak moom incha allah di ngeen ci am yu gën a leer incha allah Serigne bi. lan mooy kàddu yu mujj yi. waaw xanaa di leen sant rek di leen gërëm si occasion bi ngeen ñu may ngeen ñu bëgg a leeral tuuti si li a leeral. ñaaree ba tamit di wax nit ñi daal wax dëgg yàlla ñaan moom dafa doon lu riis loo xamante ni si maanaam ki kay ki si dugg te xamu ko rek mooy mooy mooy ki kay fowe mhm. képp koo gis ñu koy fowe da kaa xamul mhm. waaye ku xam ñaan mooy lan ak riisaayam ak ak sellam ak ak mbaaxam di ko konk ba di nga sàkku ji xam-xam mhm. te itam nit ki li mu si amee maanaam xaalis bi ñu si am teraange at mi yàlla di ko defal moo si gën a tuuti moo gën a tuuti si nit mën a am si ñaan ñaan li si nit am maanaam xaalis gën a tuuti maanaam xam dafa neex xam-xam dafa neex hmm. maanaam xam-xam dafa neex kon daal dañ hmm. wax nit ñi ñu gën a góorgóorlu si sàkk xam-xam hmm. te gën a góorgóorlu tamit di xool seen diggante ak seen borom si jëflante yi ndaxte adduna moom neex na lool yenn saa yi mu nuru lu yàgg waaye yàggut ñaar téeméer soo ko dundoon tamit ba bis bi ngay faatu su jotee day mën a dundoo daal doo loo fi mën di am tamit ba bis sukuraat ñëw moom buñ si lay métti sax nga fàtte lépp nit ki yenn saa yi métti topp ko boo xam ne hmm. soo ko waxoon jox ma ci li nga ne sa dina lépp te bàqala ko moom mu def ko hmm. kon am na yoo xam ne jërëjëf jaay sa hmm. kon nañuy gën a bàyyi xel suñu borom tey gën a góorgóorlu rek tey gën a sellal macha allah seen émission jotaayu xam-xam loolu Euh, ni bu fekkee da ngeen bëgg a jokkoo ak moom numéro bi 77 la 494 77 38 ma bamtuwaat ko 77 494 77 38 bu fekkee da ngeen nekkee diwaanu Touba ma nga euh, forage Daaru Manaan bu fekkee tamit yéen a ngi fii Ndakaaru mi ngi zone de captage kon dañ leen di jox dig daje beneen yoon di wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla ay maqaama yalaw bismil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla ay maqaama yalaw bismil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi bur ay maqaama yalaw